xiteen ja moo gën a xiir gaynde moo yóbbuy buur karaama yaa gën a rëy du sigol fay dóor xëy ba doom dawa fo mel ni jaami saamaan rahmatoom gën a xiir ci faqiir miskiin su ma yaay jaay na màtt jaay na bisaab jaay na lu ne ba bi muy génne àddina càkkri ba mu doon jaay mu ngi ci biir frigo den ko ko saraxee koko tooyba bam xol asamaaw war naa jóg bàyyi càggante tootu seewaaw amis fidèles internautes Sénégo TV ak Kawtef c'est toujours un plaisir di leen di présenter seen émission bu bees bi muy face ak facette comme ni ma leen ko waxee rek face ak facette képp koo xam ne personne bu influente nga nekk fii ci Sénégal ci bitim réew ak ay reportage yu am solo dinañ leen ko dikkal fii ci Sénégo TV ak Kawtef tey nag ci quatrième numéro bi ñu daal di recevoir ci plateau bi ki nga xam ne kenn du ko présenté mais su ma ne boroom àndala buri Sénégal yëpp xam nañ boobu les produits du ma dugg ci publicité ma bàyyi ko rek mu nuyoog internet euh, Sénégo TV ak kawteef Cheikh Ahmed Cissé euh, la dalal tey fii installez-vous confortablement ndaxte it waxtaan bi dina neex te dina am solo Cheikh Ahmed ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax euh, fii ci Sénégo TV ak kawteef maa ngi lay fay nuyoo di am mbégte ak kontante nga dalal ma file Sénégal li tax ma am mbégte ak kontante mooy sa professionnalisme sa yar ak sa dal te Cheikh Ahmed nekk na bibliothèque boo xam ne képp ku ko dalal waxtaan ak moom ci yar ak dal ñi lay déglu dineen nawloo sa site dineen nawloo émission bi mais dineen ci jàngee leneen lu bari àndalaa buri nag fi mu toll wax ko du publicité waaye mooy ni ñu day ndax mooy dimbale góor ñi moo leen di jàppale ci seen biir néegi sëy te ñu ko xam ak ñu ko xamul yëpp dégg neen ànd laa buri mm-hmm. di am kontante ci weeru koor wi la di ndokkeele bépp jullit ci weeru koor tey ñaan yàlla nangul ñu jaare fay naa la jërëjëf ci fay bi Cheikh Ahmed ñun tamit ñu profito rek ci ramadan bi daal di souhaiter un très bon ramadan à tous les musulmans ci noonu tamit la ñuy souhaiter un très bon carême ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk chrétiens yi ndaxte it ñu fàtte ne Sénégal pays laïque la ñi nga xam ne ñooy jullit yi ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi ñu ngi dund ci dund bu am solo bu am yar te it dañuy demal di dikkalante donc suñ ñaari weeri koor yi daal bu tasee xéewal lay doon te it day firndee rek li nga xam ne mooy dialogue islamo-chrétien bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Sénégal ak fas ou facette comme ni ma leen ko waxee rek ni ngeen ko tàmmee di ko seetaan trois parties lay doon dans un premier temps temps suñu invité dina joxe li nga xam ne mooy actualité deuxième partie ñu dugg ci confidence daal di ko tëjee li nga xam ne mooy quiz premier partie bi rek la ñuy daal di sumb ak Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Ahmed nag buñ koy présenté mun nañ jàpp ne moom mi eh, Cheikh Ahmed Cissé marabu la sexologue la wante it homme d'affaires la bëri nag kasket yu bëri yu ngeen xamul ci Cheikh Ahmed Cissé tey occasion la ñu won leen yeneen casquette yi ngeen dul gis wala sax yi ngeen xalaatutoon xam ko ci Cheikh Ahmed Cissé fii lay xewee ci émission face ak facette ñu dugg rek ci li nga xam ne mooy weeri koor bi Cheikh Ahmed lan ngay wax tey sénégalais yi ak koor gi nga xam ne tàmbali nañ ko ak jullit yi tamit nan lañ mën a defee ngir seen weeri koor ak seen jaamu yàlla yàlla mën koo nangu ginnaaw nag weeri koor doonu li nga xam ne mooy bañ a lekk bañ a naan wante it am na yeneen condition yoo xam ne dafay ànd ak koor li ci jiitu mooy liñ naan payu laïc loolu islaam moo ko ñàkk nangu ci dëkkul islaam ñim sóoraale mooy ñi gëmut yàlla ak ñi nga bokkalul diina ndax daf la digal nga rafetal jëmee ci ñoom kon lay dëgg mooy lislaam beneen ba ca tegu maa ngi leen di xamal ne lislaam dafa reconnaître nit ki ñàkk gëm yàlla nekk ca lam ne ndax diine bu màndu la moo tax dafay màndu loolu sax soriwul ndax da ngay ñu ne la lëkkum diinukum wala yet diini euh, beneen ba ca mooy ñun diine biñ gën a bëgganteel gën a nekk ak moom mbokk mooy christianity te den nuroo mbir ndax christianity suñ ne in the name of the father and of the son and of the holy spirit loolu baatin la ñett la ñuy junj te ci biir lislaam ñett moo am solo mooy iman ihsan ak islaam te ci biir ñett yooyu xam-xam ñett la mooy ilmul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin ci biir loolu même yàlla sax ci ñett rek nga ko mën a xame mooy bi sifatihi ci jëmmam ji bi ismihi ci turam yi bi zaatihi bi sifatihi ci meloom bi zaatihi ci jëmmam yàlla jëmmu tur melo nga ko mën a xamee chrétiens yi ñoom dem nañ ci turu baay bu sell bi ci turi leer gi ci turu doom bi kan mooy baay lan mooy leer lan mooy doom ndax ñun den naan maam yàlla te sa maam mooy ki jur sa baay wala sa yaay te xam ne na yàlla jurut waxin la foofu boroom xel yi laay yónni suñ demee ñëwaat ju continuer waxtaan bi hmm. diine jooju di christianity seen yonent bi muy Isa dafa bokkoon ci ñu gën a bëgg yonent bi te annoncé ko wa is qaala Isa ibnu maryama ya bani israila inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrata wa mubassiran bi rasulin yatiya min baadi ismuhu ahmad ahmad boobu noonu maqaama la ahmad tijaani ahmadu bamba ahmad jeylaani ahmad ahmad ahmad maqaama la moo tax si asamaanu ñeenteel yonentu yàlla muhammad ahmad leen ko fa tuddee te ñeent yooyu nag mooy bërëbu yàlla mooy makkaanu yàlla ndax yàlla awalu la moo fi njëkk moo njëkk yàlla aaxiru la moo mujj mooy mujj yàlla zaahiru la moo feeñ feeñ ba nëbbu waaye yàlla baatinu la moo nëbbu ba feeñ donc euh, chrétien daal ak lislaam diine leen yoo xam ne dafa mel ni wilaaya ak nubuwa waaye loolu nag ku ci bëgg xam lu bari bari bari te leer nañ da ngay dem ci xalifa yàlla bi Cheikh Aboubacar njaay sàng moom xam na ci lu bari waaye dëgg-dëgg ku ci bëgg xam lu bari dangay ngay bëgg Cheikh Ahmadou Bamba wala nga bëgg Maodo ku ci bëgg a xam lu bëree bari dangay ngay màndu ci nit ñi te xam ne yàlla rek mooy buur waaye yàlla nag moom amul buntu amul bërëb waaye sàkkal neen ko bërëb te xolli nangu neen ko ñu ne jumaa mooy néeg yàlla ma ne mbata dafa am keneen ko moom duus bi ñu ne màkka mooy dëkku yàlla ma ne mbata Sénégal dafa am keneen ko moom ko dul yàlla euh, ñi ñooy xisbullahi ma ne ana xisbu seytaane ndax seytaane yàlla la yàlla seytaane la donc c'est un peu compliqué dafay xaw a nuru yëfi dof mais ci gàttal te mu leer daal. wax juñ mën a dégg ci nopp. mooy diine chrétien ak lislaam ku ci nekk dëgg rek war nga mën a jàmmat jàmm sante ak sa morom. te lu tax ñu war leen a may jàmm mooy yonantu sa alayhi wa sallam bi ka la joxee risaala mu jaaxle xatoon ci biir mbokkam muy wut fu mu làq sahaaba mi chrétiens yi la ko dénk. ci dëkku chrétien yi muy abasa di Addis Ababa tey in Éthiopie donc kon suñ ñëwaatee. ba in Luton 2019 chrétiens yi génn seen église may jullit yi ñu def julli korité foofu normalement war nañoo xaar Masalikul Jinaan nag ñu ubbil eh, chrétiens yi ñu def seen mees war nañoo xaar jumaa yi Medina Baay ñu ubbil chrétiens ñu ñu def seen mees parce que yàlla la ñuy jaamu te ñun ñëpp jaamu yàlla leen te jaamu yàlla ci bërëbu yàlla war naa mën a nekk xelu sénégalais nangoo ko mentalité sénégalais nangu ko waaye diina lislaam nangu na ko te l'islam laa wax Euh, kon daal maa ngi ndokkeel chrétien yi mhm. di ndokkeel jullit yi di leen wax ne weeru koor yomb na mooy bañ a sëy bañ a lekk bañ a naan euh, bu deret génn bul wëccu lii mooy koor fu jant bi duggee ba fu mu génnee ah, mhm. li koy rafetal nag mooy bàyyi lu bon ci wax ak ci jëf mhm. li koy doya dal mooy di wax lu bon di def lu bon li koy yàq mooy sëy naan lekk deret ju bari génn nga wëcc lu dul lii koor gi yàquwul buñ jaawale lii yàqu koor ak liy yokk wàññi yoolu koor du benn buñ jaawale koor gu nangu ak koor guñ gërëm du benn koor buñ ko nangoo den lay fay buñ ko gërëmee nag wal wal wal wal buñ ko gërëmee dafay doon loo xam ne pour avis la mun na dem sa ba sa ay doom mm-hmm. kon yal na yàlla nangu suñ koor te may ñu koor gu ñu gërëm am na solo leeral yi am na solo kàddu yi aussi am na solo borom xam-xam yi ñu ngi dégg te it j'espère bien que wax ji cible te it ñi ko war a dégg dégg nañ ko mais tey Cheikh Ahmed kàddu yi nga yëkkati am na solo mais dañuy gisit Cheikh Ahmed ci ay prêche am euh, day day day bëri langage. Cheikh Ahmed bu ko neexee day ñëw ci profil bi nga ñëwee sànq bu ko ñëwee neexee Cheikh Ahmed day ñëw ci wolofal te it ñu fàttali nekk baatu wolof ci reen ba ak ci xol ba bu ñu ko jëlee yenn kàddu yi rekk ci Sénégal dafay nuroog euh, benn genre offense tey différentes facettes yooyu da am cible wala da ngay bëgg sa wax yegg wala it du buzz ndax tey it Andala Boury ak Cheikh Ahmed Cissé jamono ji doonatul buzz ñëpp xam nañ ko kàddu yooyu différentes facettes yi différents waare yi ci lan la lan nga ci jublu euh, xam nga <clears throat> buñ na Sénégal Sénégal rek la mais ci biir Sénégal am na ko doyadi am ku ñoradi am ku gàtt xel am ko ñàkk xel am ku dof am ko iñaan am ku soxor am ku jàng am ko saay-saay am ko xàmmee am ku am xam-xam am ku réer am ku nekk am ku nekkul boo waree wax ak ñëpp nga bugg ñëpp déglu la il faut utiliser certains angles wala certaines choses pour mën a attirer attention nit ñi bu nit ñi ñëwee pour déglu nag boroom xel yi ñooy gën a jëriñu boroom xam-xam yi jëriñu waaye ñi mànduwul ñoom duñ ci loru donc man dama koy wax toujours dama nekk ci biir dëkk bi di jaxasoog nit ñi jàng Sénégal jàng sénégalais man juróom-ñaari dëkk yi nekk Sénégal yëpp dem naa fa quatorze régions moo fi nekk. mais juróom-ñaari dëkk fi nekk. Waalo Kajoor Njàmbur Bawol Jolof Siin ak Saalum yëpp laa xam xam nu ñuy xalaate ni ñuy defee ni ñuy waxee ni ñuy yare door a xam sénégalais. sénégalais bi jàngi arabe ban mentalité la am. sénégalais bi jàngi français ban mentalité la am. bi liggéey te am xaalis ban mentalité la am sénégalais bi jaay muus nga xam ne moom métier mooy ñaan intellectuellement ñaan ma ñaan ñaan noblement ñaan beusement yépp ma xàmmee leen bëgg a waxtaan ak ñoom pour ñetti mbir nag laa ci bëgg. bu ci njëkk mooy am ci ñoom xaalis ñaareel ba am ci ñoom cofeel ñetteel ba am ci ñoom yàlla. bu doon yàlla rek jarul ma wax mën naa noppi am yàlla waaye xaalis daf ci bokk objectif bii nag soo ko amee yow da ngay seet lan nga bëgg moo tax fi ma commencé ak ñoom mooy cëm am na ñoo xam ne bu ñu gisaan suma vidéo dañuy sàppe dem duñ sax xool mais tey seen connexion man maa koy jeexal man donc fi ma tolloog sénégalais actuellement mooy ñoom ñëpp dama leen iri ci benn boor mooy ñi ma bañ den naan na woddu kàddu yi na ko rafetal na wane teggin léegi su ma wanee teggin ñooñ xam nga dootuñu amati choix dëkk bi yëpp laay moom donc stratégie la soo moomee dëkk bi nag nga indi leen wax ju teey wax ju dal wax ju yiw mooy fexe nga ba ñu bëgg la fexe nga ba ñu jox la nopp parce que tak man du ma yonantu yàlla balaa mu yónni yonantu bi dafa yónni yonantu yëpp ñu dëggal ko wax naa la léegi Esa lu wax maa ngi leen di bégal ci ku war a ñëw yonantu yàlla Ibrahima wax ko man kenn annoncé wu ma dama war a def suma annonce suma bande annonce nag moom dafa risqué waaw bande annonce bu terrible la. léegi annoncé naa suma bopp ba sénégalais xam léegi jox leen ma nopp war naa leen a mun a respecté nag di wax ak ñoom wax ju dal. wax ju du changer sokke pour éduquer def tout ce pour éduquer te léegi-léegi ma cabaxal ko ci ay vidéo am na bu ma def ci wàllu njaalo vidéo bu daw yaram am na bu ma defaat tey ci wàllu jigéen donc damay rocc di dugal comme dam la rek jëla mais doo ñëw rek changer complètement kon dafa am ñuy vidéo ñi bëggoon fait divers dootuñ déglu te ñëpp nga soxla ñi bëggoon cas dootuñ déglu ñi bëggoon vulgarité dootuñ déglu léegi da ngay rocc di génne maanaam ki bëgg vulgarité ngay convaincre ba mu xam ne c'est pas vulgarité rek nga mën a déggee message bi. ki bëgg waxi caga du waxi caga rek nga mën a déggee message mais mën naa waxi caga diplomatiquement xam nga maa ngi bi ma nekkee woon benn tele maa ngi doon wax naan bi may nettali carte maa ngi dama daan karta Daesh dama daan karta penalty mais teg pax bu ndaw doo dama mën a dugal donc caga bi dina dégg li ma wax mais wax ji rafet na donc mën naa rafetal wax nu ma neexee mais defam lu ma bëggoon objectif boobu laa atteindre tey des na tuuti nag parce que tey Sénégal amul ñaar ñu ma xamul olof ku koy làkk ci àddina xam nga ma léegi léegi nag xam nga ma bi nga ma xamee xam nga ne am na xam-xam nga ne am na fit xam nga ne am na fayda xam nga ne am na fulla xam nga ne ku dëggu xam nga ne ku ñàkk caaxaan la mais ku am personnalité la léegi lu des ñoom ñu ne rafetal ko woddu kàddu yi ak teggin léegi su ma indi loolu ñen ñoo des su boobaa quoi par laaj réew mi. wala ñu ma mën na nekk parce que réew moom du dara lu mooy nit ñi bëgg la rek bu la nit ñi bëggee jox la réew mi bu la nit ñi yaakaaree jox la réew te xelam réew. Mm. xel mu mën a yóbbu réew. Mm. xol bu mën a yóbbu réew. personnalité charisme bu mën a yóbbu réew xam-xam bu mën a yóbbu réew ak nangu critique ak oyof ak jaxasoog nit ñi ak ñeme seen lor. loolu mooy def nit mu mën a jiite réew. te moo gën am na loolu Cheikh Ahmed am na loolu donc noonu rek la kaa bi demee donc ni ma doon waxee. dafa am lu ma bëggoon rek am naa ko léegi nag dafay baax ma du ma simmeeku parce que su ma simmeekoo rek nit ki dana ne eh, dafa simmeeku xaaral ma daw noo damay tekki kaala gi def leneen ba nga gis le vrai Cheikh Ahmed vrai jàngalekat su boobaa nag. bu Cheikh Amir waree def conférence nit ñi yàkkamti ko su boobaa bokk nag xam nga damay dégg Touré de communication tue la communication ma leen répétition c'est une pédagogie goog donc su ma demee ba mu yàgg da ngay limité xam plateau yi ngay toog yi nga dul toog ñen nga war a toogal ñoo dul toogal noo war a waxee waajal sa discours teg ko ci ay texte jàngkat yi nga yebal leen xam nga man dama mën arabisant yi dama leen di ñëw si yàq baat dama naan laa ilaaha illa anta subhaanaka indi kuntu rek ñu ree eh, inni kunta la kuntu la donc ñoom dañu xaw a sew loolu moo leen di joie dama leen koy jox ñu lekk ba suur français yi nga def sa benn graphe anglais yi nga làkk anglais ñu kontaan donc sénégalais ci seen différent mentalité bañ mën a déglu Cheikh Ahmed. moo tax da ngay gis koo xam ne gëmul sëriñ xam ne taalibe Baay la mu mën maa déglu. gis koo xam ne taalibe Baay la mais kii am na ñu mere nga mën maa déglu gis murit bi bëgg ma man. Mhm. soxna mun Muntaxa nee na ma may sa yaay. sëti sëriñ Touba yi liñ may jokk daf may jox kers moo tax ku ma ci ne Mbàkke ma woola donc noonu laa mel kër Cheikh Seydi Hadji Malick Limaamu Laay moom doomam laa man fu mu nekk nii ndax man ci baytu laay laa bokk laay maxtaar donc ñii laa mel ba aw ma ak ñeen problème te taalibe bàyyi yi dëggu bàyyi ñes rekk ñor leen amuñ benn naa fexe den ma bëgg mais ku ci nekk ci ñiixi naxa ak xiili xaala savant yow demal man ñoroo donc changer communication bi wareef la ngir jox nit ñi cër te bëgg ñëpp jox la nopp déglu la. tey bu ma changé woon communication jox ko yar ak teggin réew mi kan moo ma dàq wax luy jëriñ askan wi. kaw ba suuf ci gouvernement bi ba ci société civile ba ci diina ji ba ci kan indil ma kenn nit. donc c'est ça quoi loolu rek la amoon lu ma bëgg rek mu risque nag ma ñeme ko ndax ndongoloo moo naan yooni bànneex boo ñemewul bay xuus doo yegg bay bànneexu quoi adduna ah, ko fi bëgg a tekk da ngay léwétoo ba tas man nag dama doon dóorante moo tax duma neen ma lu ne jaar naa ci mais alhamdulilah fi mu nekk ni awma benn noonu ñëpp may topp dëgg la Cheikh am na solo yooyu sa dinañ ci dugaat bu baax ci partie confidence ñu jàll ci avant dernière question bi rek ndaxte euh, ne mooy nouvelle tey euh, taf kilifa diine di live di wax lu ko saf euh, tey jii est-ce que euh, Cheikh Ahmed bu ñu ñëwee ci partie boobu est-ce que du ñu indexé ñuy utiliser réseaux sociaux est-ce que du ñu indexé ñi nga xam ne dañuy dugg ci live bi. indexé aussi ñi nga xam ne dañuy commenter di ñi nga xam ne dañuy taf ñi nga xam ne mooy kilifa diine di wax lu leen saf te it loolu tendance bu bees la te mosuñ koo gis Sénégal depuis ko Sénégal juddu. ba ñuy dem ba ñu fekk ko fi ba ñu fi nekk. loolu mosul jug Sénégal ah. ci la musa ne xam nga dangay dégg ñu ne Baye Niass radiyallahu anhu bi mu génnee àddina ñëwut tubaab yi ñoo ko jël keneen leen indi nga dégg ñu ne Cheikh Bamba tëdd Touba mu ngi Jurbel bi mu tukkee ñëwut nga dégg ñu ne Seydina Limaamu li mu woote du dëgg nga dégg ñu ne Maodo benn nafeq la woon ne da doon naxanteeg tubaab yi. nga dégg ñu ne euh, réew mi diwa ko moom donc loolu yàgg na Sénégal wax sëriñ si lu ñaaw te ñoom sëriñ si sax wax leen lu ñaaw dafa jaadu parce que li tax mu jaadu mooy yàlla pour mu tester seen gëm yàlla foog jaam ñu lor leen ñu muñal yàlla ci jaam ñi ba yàlla jox leen may ak i wilaaya yu amul benn sikki sàkk ñi texe ci jaam ñi bëgg leen sopp leen ñi texee di di leen saaga donc c'est ça léegi nag saaga yi ngay gis moom leen doon murumtu waaye murumtoo jeex senegal ñu fësal ko ci kaw. lu déclenché loolu lu leen may fit. du dara ku am fiti jëw rek am fiti nettali jëw c'est simple xam nga tey ku texe xaddi moom dama koy wax toog di waxtaanee sëñ Bamba ak a yomb. toog di xas sëñ Bamba ak a yomb li jafe mooy roy sañ Bamba wala yegg fa mu yegg wala mel ni mel. suñ sëriñ si mënuñoo fexe ba duñu leen saaga ndax benn noon leen am muy ibliis ak njabootam mm-hmm. li war képp kenn mooy bul saaga bul xaste ko gëmul màndul ci moom ndax dëggal kenn moo moo maanaam wedd kenn moo gën a yées dëggal ko ci bokkul mm-hmm. maanaam nga gis ko walaakaana ku xala ko ne walliw la moo gën a wóor nga fekk walliw génne ko ci biir walliw yi ndax laa nu fariqu bayna ahadin min rusuli la alquran wax waaye dëgg-dëgg wax jooju wàllu yàlla yi ñoo ko moom gëm sëñ Touba te muy dëgg nga bañ Maodo Malick si radiyallahu anhu sëñ Touba ci boppam moo lay bañ moo tax saagaal beneen sëriñ ngir sëriñ wilaaya nanguwut ko mahabbatu nag nangu na ko ndax mbëggeel amul teggin amul àtte amul melokaan waaye wilaaya ak ak ak wirasatu wilaaya nanguwut loolu waaye nag mahabba moom mën ngaa rey nit sa ngir nit mbëggeel moom nangu na loolu mbëggeel la wérul moo tax xaraam mooy day mooy raayatu mahabba donc tey sëriñ si ñi leen di saaga mooy ñu texaadi ñi leen di xas mooy ñu texaadi waaye soo texee ni Cheikh Ahmed doo saaga kenn mm-hmm. da leen di fonk da leen di bëgg wax sëriñ nag ak doomi sëriñ du benn Cheikh Ibrahima Ñas doomi alaaji moo seene bu Ñas mag mag njabootam ñi ma dooroon ñoom ay bandi leen ñoom ñoom duñ dara ñoom ñoom ñoom euh, waaye nag ku fi bokk ci kër sëriñ te bon rek neen seet kuy sa ndey ak koo mën a doon waaw bu ndey ba baaxee ni sa baay baaxe doo def lu bon gis nga kër diine yi mm-hmm. soo demee ci biir kër diine yi ñu koy yàq seen ndey setuñ wala seen baay setu waaye ku ci sa ndey ak sa baay set doo yàq dara ci kër gi taalibe bu dem kër diine itam di fa yàq dara sa ndey ak sa baay setuñ lii moom dafa dafa wér ndax sëriñ bi sëriñ lu mu baax baax da ngay ñëw ak sa may mu dolli la baabul diina balaa muy dajeeg sëñ tubaa amul kem ci góor ñi mam ba jombal ko yokkal ko moo tax ba tey dabuñ ko ndax su ma déggee nit ñi di critiquer ay julli ak ñàkk julli ma ne ñàkk fayet mu nga mun a julli ba dee dem safara waaye nga am amaana ñàkk a julli luy problème bi donc dama bëgg ñu xam ne daal sëriñ si imbécile yeeg doomaraam yeeg ñi texe xat yi ak ñu tekkiwu dara rek ñoo leen mën a taf di waaye doom ju baax bëgg lu baax jàng alquran jànke yomb na nga taxaw internet rek kose sëriñ bi na biddaa la waaye wallaay boo reyoon sa bopp jàng alquran xàmmee baati ñaata keef a ñëw ñaata saara amul kaaf alquran bi subabu sababu usul bi lan la lan moo tax yàlla wàcce woon aaya bi ci ñan la wàccoon nu mu demee nga réglé loolu ba mu dee dugg ci fiqul islamiyee jàng bunti sëy jàng bunti buntu buntu buntu miraas jàng atte jàng riba jàng lépp pare ci loolu yow nga pratiquer loolu ba mën a fexe nit xool la jub nga fexe ci loolu dem ci yàlla ba àgg ci moom ba soone mu ne mu ne nga ne nga ne ku la dóor yàlla fayul la billaay doo leen tendance doo leen def morom c'est très simple nit seetaan la ne journaliste bi amul classe mais su waroon a jaar fa nga jaar ba am bag fi nga xos xoslu ba yegg Sénégal walaay du leen amoo classe donc c'est ça quoi ñu ñàkk may ñi rek ñoo leen di xem mais ñun ñi am may ñu tibbal ñu fañ leen tibbalee ñu jaar seen yoon duñ leen xas waaye dañ leen di ñee di leen puugarewoo ba pare di leen ñoŋal di leen sàmm ku ci bokkul ñu am audacité jàkkaarloo na la eh bien vrai que nuxum nga sant wala naxam bokkoo ci ndax jikko jii du jikko nuxum naxam. mu jeex takka ah. mm-hmm. la vie est mais ñiy saaga sëriñ si daal nañu xam ne du tey wax ju ñaw yàgg na fi. parce que sëriñ si mu bari soo wéetee ak ñoom ñu wax la ci sëriñ loo xam ne da ngay génn bañ ko juste politiquement la pour nga gëm leen waaye bonal sëriñ dalay bonal ndax. tey nit mën nga koo jaaral weddil ko sëriñam la mu weddiwaale ñëpp mais su fekkoon ne sëriñ bu wéet ci néeg baaxal sa morom nga génn ci biti baaxal sa morom seetaane du am cër mm. waaye bi ñu ubbee espace rek la seytaane dugg seen biir ba ñoom yi neen seen biir kër yi jubawuñ am na solo am na solo intéressant ñu partie boobu ñu leeral ko parce que c'est une nouvelle tendance boo xam ne tey bu ñu ci waxul wala bu ñu ci jógul dina ji loo xam ne kenn du xam lan mooy conséquences yi parce que fois dafa dafa grave te ku ci nekk rek li nga gëm da nga koy téye da nga koy gëm da lay jaral donc ku ci nekk rek ci li nga nekk gëm ko te bañ keneen ki nga xam ne ci loolu la nekk ñu jàll ci <coughs> deuxième partie bi Cheikh Ahmed muy parti confidence Cheikh Ahmed boobu nag dañuy jàkkaarloo waxtaan bu baax ndaxte <clears throat> buñ jàppee nii Cheikh Ahmed entrepreneur la Cheikh Ahmed marabu la Cheikh Ahmed sexologue la wante dañuy njëkk a taxaw eh, Cheikh Ahmed diggante Gàmbi ak Kaolack lan muy histoire bi fa nga jàngee fa nga màggee fa nga amee xam-xam lan mooy différence bi diggante Gàmbi ak Kaolack ci sa vie Oh, Kaolack moom dëkkuma fa mbokk yu baax laa fa am daan fa dem di leen seeti ñu baax ci man gën ci man mu am benn kabooy bu tudd Cheikh ma Niass doomi alaaji mot géné bu mu baax mu sell ma ak njabootam gu bon gi jàpp ma dóor ma tooñ ma justice su toog di seetaan loolu le defu ci waxu ci ah bi loolu xewee ma ba Kaolack dew fa waxuma fa Gàmbi nag man nu ma mel Gàmbi la falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee falaa jànge English fa laa jàngee alquran fa laa jàngee diine fa laa baatin I am a pure son of that holy nation the Gambia foofu moom nu ma mel ñoom la nu ma mel foofu la suma butit bi gàmbi leen ko sul gambien la hmm? donc su ma histoire ak Kaolack amoon mbokk yu baax rek di leen ziyaare ji c'est ça leneen bokkuma fa dëkkuma fa awma fa sa ganaar waaye am naa fa ay mbokk yu baax mais Gàmbi moom falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee falaa takkee jabar falaa amee doom falaa amee lépp <laughs> Sénégal récemment laa fi ñëw ba toog seen bopp yi poñe leen mais xam naa ne moom buñ paree ci man dineen ma <laughs> répartir répartir Gàmbi <laughs> ba tey ci Sénégal boobu nga toog Cheikh Ahmed ci sa benn vidéo yaa ngi recommandé li nga xam ne mooy gouvernement Sénégal ñu jox la benn poste tey ci poste boobu Cheikh Ahmed quand tu te réclames sexologue tey fii Sénégal ñi ko fi wax bëriwul ñi am diplôme bi bëriwul yow booy laajte loolu fan nga ko teg da nga ko jàng da nga am diplôme wala it àndalaa buri bi moo am bës rek Cheikh Ahmed daal di fëgg dënnam ne tey intégré wu ci gouvernement pour mbirum sexe xam nga tey di nga gis ministre de la pêche te jàngul mbiru géej di nga gis ministre de l'élevage bu musul bay donc ministériel post politique la rek. Hmm. donc même bu ma doon diplôme mën neen ma koo fal te créé ko ma doxal hmm. mais certificat dafa am diplôme am aw ma ci diplôme mais am naa ci certificat. fan nga ko am benn ñaareel ba Sénégal. Hmm. ñoom ñoo xeeb beneen xam-xam bu dul français parce que ku xeeb sa langue rek xeebu te ku xeebu mën a xeeb mais Gambie gii ñu nekk dañu am tribunal bu lislaam tey bu ma la lebaloon ci lislaam dañuy dem ñu àtte ñu ci alxuraan bu ma amoon problème mu sëy dañuy dem ñu àtte ñu ci lislaam xam nga sëy buñ takkee ci jumaa nu ko procureur rek avocat mun a àtte moo tax Sénégal dangay gis ku nekk ci procédure divorce deux ans doo am divorce mais Gambie dañ lay takk ci jàkka je ñu indi seede ñu àtte ci lislaam ñu tas ko ku ne dem noonu la ñu respecté ñi am xam-xamu reen ak sunguf di leen jox ay certificat parce que réewum anglophone la duñ France duñ francophone sewuñu Nigéria bokk naa ci ci ay séminaire ba am ci ay certificat yu bari Gambie ma am ko fa parce que duma sénégalais bien vrai que am na qualifié naa pour double nationalité constitutionnellement man am naa droit am ñaari carte d'identité muy Sénégal ak Gambie parce que su ma yaay suma baay suma jabar suma doom sénégalais dama qualifié automatiquement Kalidou Koulibaly mu ngi mooy capitaine du Sénégal France la juddoo. Mhm. yaa ngi dégg am na sax ministère du Sénégal yoo xam ne bi ñu leen defee ministère la ñu delloo seen nationalité. Mhm. mais man sexologue la ci ay entrainement ci ay séminaire ci ay recherche mais duma ma sexologue ci benn école wala institut sénégalais wala français bu ma jox diplôme non ba pare mën nga doon imam nga réclamer que imam nga ban diplôme nga am chef religieux yi ban diplôme la am da ngay gis xalifa général ci réew mi bu amul diplôme bu reconnaître ne xalifa la mais mbooloo ñoo dajaloo def ko seen xalifa mu doon il faut ñu respecter différence su nit ñi mais pas benn koñ rek benn koñ rek mooy àtte mooy juge soo duggul école bi séminaire bi defoo diplôme tu n'as pas le droit pour réclamer une sexologue man may sexologue bi gën a mag ci Afrique parce que ñoom lañ jàng xam naa ko xam naa luñ jàngut ñoom. te mën nañoo toog ma jàngal leen ci mbirum nit jàngal leen ci góor ak jigéen parce que dafa am lu téere yi bindul te man xam naa loolu. donc sexologue la ci métier ci xam-xam ci ay certificat mais ci expérience. d'accord wuute na ak àndalaa buri bi ndax àndalaa sax defaruma ko de. Mm-hmm. déedéet damay gëstu garabu kàttan dem ba gis àndalaa mu yéem ma ma waxtaan ak ñoom bokk ci. ñu koy defar suñ defaree ma indi tuddee suma maam def suma branche garanti jaay mais du man maay defar Andalaburi aw ma xam-xam boobu waaye gis naa ñu ko xam mu leer ma ne li ma xamoon lii ko ëpp doole ma bàyyi li ma xam jàppali <laughs> comprendre si waaw tey mën nga moom Sénégal mais nag defaroo caméra mm-hmm. defaroo taabul ba mm-hmm. moomoo courant ba mm-hmm. mais dafam loo dajale ba mu doon Sénégal àndalaa maa ko moom mais cosaanu garab bi du man maa ko defar Euh, tey ba tey ci sexologue boobu depuis combien d'années ñaata at yaa ngi ci yëngu en temps tey ban kaa nga ci dajeel Cheikh Ahmed kaa bi critique nga réglé ko mu doon satisfaction ci yow. Euh, bi ma ko commencé yàgg na man à l'âge de 14 ans foog naa ne ci laa commencé concentré ci wàllum sexe. 14 ans. Mmh. que voilà léegi bu ma ci dajal mu critique ak bu ma def bànneex du benn bi critique mooy dama dajeeg benn góor i i rajo la ma woowee ne moom li ko jaaxal xuuram yi benn rek la am ma ne ko benn bu ndaw wala benn bu mag mu ne benn xuur la ma ne ko yaa ngi fonctionné mu ne ma tuuti loolu moom jaaxal na ma gis benn xuur mais ci kooku laa gëstoo ba xam ne yàlla day bindee góor benn xuur xaw ma ko woon billaay xaw ma ko woon. benn kese la am amul ñaar. ok zéro. waaw waaw zéro la léegi su nit foogee ne suivre la te jàngul yaa ko tooñ mais man waxuma zéro. waaye ci sexologue la dañ koy codé rek zéro benn zéro. ok d' accord <laughs> kon zéro. Mhm. léegi beneen bu ma jaaxal tam mooy koo xam ne moom bu toogee moom kenn. Mhm. dina yëg boppam dina taxawal. buy wax ak jigéen bi sax dina mën a mballu ba daanu mais su tiimee jigéen ji du jub boobu tam yéem na ma mais bi ma gën a def satisfaction. nga xam ne tey bu ma tëddee sax dama koy xalaat mooy ndaw si jëndoon àndalaa buri ci man ñëw ci man ne dama la soxla ma foog ne ci ñi ma nopp la rek xam nga jigéen ñi den maa nopp den maa bëgg. mais man moom du may rejeté ku ma nopp ma fayu parce que nopp dafa foor jigéen bu la xoolee ba nopp la nopp ko rek. Mm-hmm. Euh, léegi mu ñëw suma néeg gaaree oto bu baax oto bu tooy mais moog oto bi xaw ma ko gën a tooy bi mu toogee parfum bi jolli lool nag. mais muuñ nag da commencé defaruwaat xam nga ku ñaaw day bëri tiitar <laughs> ma foog ne dal naa ci mu ne ma am naa jëkkër te nopp ko lool ma xaw a sedd mm-hmm. mu ne ma mais dafa am ci loo ma dimbale man dama laa jéppi foo romb ma aj duma la sa déglu mm-hmm. mais su benn collègue na ma déglul kii ma déglu la ngay laay fekk maa nga mer dama reetaana reetaana reetaan ba bëgg a dee ma may la nopp nga convaincre ma ma wax ak suma jëkkër installeel ko TikTok ci téléphone mu di la déglu ñu conclure jënd ànd laa buri mu ne ma biñ ko jëndee keroog laa bàyyi mooy suma jëkkër ndax li mu yor ndaw na tellement te gaaw na daanu ma toog suma balcon dawalkati seret bi di saw xam nga soo nekkee ci kaw da ngay mën a gis ci suuf mu ne ak li ma nekk quatrième niveau yëpp affaire yi rëy ci man ba ma tiit mu ne ma kontaan ci saa si ma excité xaw ma nuñ koy waxee maanaam ma tooy daal mu naxanteeg xale bi ba di ko may lekk xale bi ñëw mu tëddee ko léegi su jëkkëram demaan liggéey mbindaan bi dem mbindaan bi lay yónni marché moom balaa liggéey ci lay woo waa ji mu indi bool bi parce que da koy tibbal añ su delloo see bool bi fa la koy laale donc la fait que may joxe message di jaay ba nit kuy sëy bàyyi njaalo dëgg-dëgg loolu sedd na suma xol mm-hmm. beneen bi dafam ku siw ku nekk ci rajo ku ma booleeg benn góor góor bi menuisier la jàngal na ay nit bañ takk jabar mais moom amul confident pour takk jabar parce que awraam bi ni baaraamam bu ndaw bi la yem ma jaay ko régu mooy bii guddal rëyal muy jënd benn mu yokk trois cent muy jënd di jënd di jënd ba am satisfaction ba am jabar tuddee na ndaw si doom nee na su amee góor man la koy tuddee donc la fait ma dimbale waat doomu adama bu am droit am jabar ba mu am jabar ñaar yi ñoo ma gën a marqué ci lu ma neex mm-hmm. mais yi ma gën a choqué ñaar yëlee la parce que mënuma nga wax ak nit ci téléphone taxawal tiim tiim kaay munoo dugal loolu man mënuma koo comprendre. beneen bi benn cours rek man loolu tamit yéem na ma yàgg naa gis yu ëppante yu sutante wala nga toog benn place concentré affaire bi aju dugg ci biir parce que xuur day tukki day ñëw maanaam zéro day tukki day ñëw. léegi nag su tukkee ci biir lay dugg am na daal ni ñu ko war a mun a waxtaanee ba nit ki mën a comprendre mais benn kese. Mhm. mosuma ko gisuma àdduna ñaar yi moo ma gën a sokke ñaar yi moo ma gën a neex. d'accord sa euh, premier million wala est-ce que àndala pourri bi sexologue bi consultance bi ak produit yi gis nga ci sa bopp ba jamono jooju nga ne ne man ci lii lay concentré wu ndaxte it euh, ci dara boo ci yëngu ba ci insister di ci def ay produits di ci def ay recherche c'est parce que yaa ngi ciy gis sa bopp ndax sexologue bi am nga ci million mus nga ko cee am la ci ban jamono ci yenn circonstance su ma premier million ci mbirum sëriñ laa ko am te dakaar laa ko amee woon suma premier 40 million mbirum sëriñ Abuja suma premier 60 million mbirum sëriñ Maroc million moom sëriñ xam-xam bi ma donn ci ndey ak bàyyi donn ko ci maam jàng ko yàlla may ma moom ma ko ñamal d'ailleurs xam-xam moo ma njëkk dugal ci chambre boo xam ne maa koy luye moom ko tëddal ma ci lal bu ma moom dugal ma avion mm-hmm. lu xam-xam moo ko def mais mbirum sexologue mosuma cee fayee ko dërëm dama ko jàng mën ko ngir jàmm ci yàlla. billaahi wallaahi tallaahi képp ku ma mus a jox dërëm ci sexologue bi na ko wax dama lay consulter dimbale la waxtaan ak yow gratuitement. mais àndalaa buri gi nag leblewu ma mayewu ma damay jaay. àndalaa buri bi première xaalis bu bari bu ma ci téye. ma xam ne lii àndalaa buri la 3 millions la woon mu teew. ma téye ko mu neex lool ci man parce que dama bëgg xaalis man bëgg xaalis ba xeetu 10 000 daf may neex. waaw dama bëgg xaalis ba soo ma ko joxee dama lay bëgg mm-hmm. même boo ma yoo jotoo ma sax soo ma ne dugalal naa la yoo si saa si laa lay wax xaalis moom dama ko bëgg dama ko bëgg bëgg ba ku ma koy jox dama lay bëgg mm-hmm. ku ma ko dul jox duma la tollalee ki may jox xaalis franchement parler parce que nit nit rek la waaye bu ca xaalis yokkoo na plus la mm-hmm. donc mais léegi àndalaa gi ça mu ngi fay mu ngi fay parce que wax dëgg yàlla lu coow li bëri bëri nekkuma ci leneen nag waaw lekkuma xaalisu nguur sàccuma tappalewuma tiriyaawuma jaay jënd dunde te wax dëgg yàlla nag moom su ma dut millionnaire rek am naa dund millionaire parce lu ma neex laay lekk fu ma neex laay dem fu neex laay tëdd te lu ma bëgg a def xaalis di ko def danaa ko def ci ndakaaru donc àndalaa gi moom wax dëgg yàlla xam nga du du ngor sa diggante ak sa borom mu dox nga ne doxul mu ngi dox wallaay mu ngi dox waaw man moom maa ngi doxle ñoom ñoo doxle wut waaye man maa ngi doxle. yu <laughs> maam Ndiaye. waaw maam Ndiaye sama moom suma jigéen la. dama ko bëgg. <laughs> mu ngi doxle ñoom ñoo doxlewul ba tey ci sexolog bi Cheikh Ahmed say vidéo TikTok ñu ci bëri bu ñu seetaanee dañuy gis sa message bi nga xam ne danga koy envoyé jigéen ñi nga mel ni sax benn genre ambassadeur. di jàppale jigéen ñi ci ay conseil di jàppale jigéen ci ay astuce tey ci jigéen ñoo ñooñu Cheikh Ahmed relation bi ngay am ak ñoom est-ce que dafa am loo xam ne ci sa passé dafa daf la marqué comme tey bu ñu ñëwee sa diggante ak sa waajur xam nañ ne nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm. amiin eh, te suufu sedd ci ci kawam tey est-ce que loolu daf la motiver ba sa xam-xam da nga ñëw rek jox bopp ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi pour jàppale leen. non non man suma papa laa fekk mu bëgg jigéen. fonk jigéen teral jigéen man suma papa mosuma ko gis mu xuloog jabar mosul dóor mosul fase euh, sëy bu tas ak fase du benn ma fekk ko muy koo xam ne mosul bañal jigéen noonu leen ma yare xam nga di nga fekk kuy dóor jigéen fekk du moom fekk baayam doon dóor yaayam fekk kuy saaga jigéen fekk du moom dafa juddoo ci an environnement bu ñuy saagaa jigéen di nga fekk kuy toroxal jigéen fekk yaayam la ñu toroxal ba mu màgg ci loolu muy fayul ndeyam mais man suma baay dama ko fekk mu téye soxna comme urul ay ni te moom ci sëriñam la ko jëlee Cheikh Omar Touré Cheikh Omar ci Baye Niass la ko jëlee Baye Niass moom yonantu rek la teg ci kanamam donc loolu mooy suma background ci bëgg jigéen léegi euh, bi ma jàngee ma xam ne yonantu wax na ne ki torox rek moo mën a toroxal jigéen bi ma jàngee laa fekk yonantu ne kenn du leen toroxal lu mooy ko torox bi ma jàngee laa fekk yonantu ne man maa leen gën ndax maa gën ci sumay jabar ak sumay doom kon gënante nit ñi du ci sa image nu ñu la jàppee ni ngay waxee mooy nommeel sa jabar ak nommeel sa doom ku la gën ci jabaram moo la gën ak ku mën a doon euh, ci la ma dem nag ba ci maarifatu billahi ma fekk jigéen ne mooy xaqiqatu muhammadiya ndaxte yonent yàlla yusufa den koo jàppoon tëj ko te deful dara ndax du mooy weenu jigéen yi ñuy tëj ci soutien te deful dara yonent yàlla yaxya den koo dàqee ci garab gi dagg ko deretam génn mu dee ndax du mooy mbërëgu jigéen yonent yàlla noox moo gàddu woon gaal ga ndax du mooy jigéen ainsi de suite waxuma loolu la ma ne ndax du parce que xaw ma <laughs> waaye daal fekk naa jigéen di xaqiqatu muhammadiya ci lu wér a wér ma fekk wàllu wi même suñuy wëy yàlla sa dañ naan may laa wala layla wala salma di mellal jigéen yonent bi mu mel ni dañuy junj li ma doon junj te wax ko te fekk waxuma ko te loolu laa wax hmm? léegi jigéen daal dama leen bëgg ma fekk leen nag ci société boo xam ne dañ leen di lor di leen toroxal di leen duma di leen di leen noot ci turu royal diw lislaam nee na aada nee na te loolu yëpp du dëgg xaw ma ñoom seen diine mais man diine ji ma nekk muy lislaam dafa jox jigéen cër daf ko fonk daf ko def buur daf ko def or daf ko fonk ba nëbbuloo ko ay cëram fonk ko ba wàññiloo ko kàddoom fonk ko ba euh, ah lislaam daal moo xam jigéen moom moom ni mu ko def moo tax su ma gisee jigéen ñi naan cinquante cinquante ma ne mukk lislaam trois cent pour cent la jox jigéen ah da nga war a dund mu ne góor gi demal uti lu mu dundi mbiram doole mu ne arrijaalu qawaamuuna ala nisa mbiram yor kër nu mu méttee mu ne góor gàddu ku ne war ngaa toppatoo sa bopp ñu ne góor toppatool sa bopp toppatool jigéen toppatool doomam ay nooy laajee cinquante pour cent non non non l'islam joxut la cinquante nit ku ne sa ndey jox ko jett yoon door a jox sa baay xanaa nag l'islam a gën l'islam a mën jigéen te man may doomu lislaam xam lislaam moo tax ma bëgg jigéen bëgg tëddee jigéen bëgg njaaloo jigéen bëgg taat ak bëgg jigéen du benn man jigéen laa bëgg donc li tax ma bëgg ko background bi mooy alaaji Malick Cissé mu baax bi ma jur te yar ma mhm. waaye yaroo kër Cheikh Omar Touré moom fa la yaroo mhm. moo ko yar moo tax mu am tabeem am woyofam am mbaaxam am mën a jëllalem am man a jéggalam man nag pangala la rokki mi rokkaani rek waaw soo ma saagaa ma fay su ma xasee ma delloo la soo mbaax ma delloo la loolu rekk la fii daal la su ma bëgg jigéen dooree. Hmm. amoo benn souvenir boo xam ne mun nga koo partager ak internet yi ci jigéen ba tey mais ci waajur boo xam ne tey bu fi nekkoon dina xam ne am na fierté ci doomam. Hmm. mooy ni ma daan maye daf ko neexoon benn bis mu ne ma jox ma lii ma jox ko ma ne ko lii ci des mu ne ma soo génnee da nga koy maye rek ma ne ko bëggoo maye mu ne ma ah kay. mu ne ma léeg-léeg ma mere la génn nit gërëm la ma kontaan loolu neex na ma trop kàddu googu neex na ma ci moom beneen bi nangoo liggéey bi ma nekkee foo ma fekk maa ngi ci àndalaa fu ma toog wax ci moom laa ko jëlee su ma yaay jaay na màdd jaay na bisaab jaay na lu ne ba bi muy génne àddina càkkri ba mu doon jaay mu ngi ci biir frigo den ko ko saraxeel mhm. loolu yëpp dund na ko man daal doonutoon suma xarit nag suma yaay man suma papa mooy suma xarit suma yaay suñ xaritoo demewul noonu moom Moussa caatam bi mooy xaritam ak maam Astou mais pas man bi mu bi mu génnee àddina sax laa ko gën a bëgg ci laa gën a sentir que dëgg-dëgg ndeke yaay lii la woon ci man man suma papa laa bëgg sama daan toog ma ne ko yaa su dee doon benn yow yaay dee suma papa dund <laughs> eh, waaye ku baax la ku baax la mais man doonutoon suma xarit de suma suma papa moo doon suma xarit mais bi mu génnee àddina quand même ci la yërmande bi gën a ñëw ci moom cofeel gi ma toogaat ma ne waaw kii dootuma message ba ko déggati den ma commencé nag réccu temps bi ma daan def duma ko woo réccu nag lu bëree bëri entre ma nag moom réccu pas lu ñaaw mais réccu parce que mënoon nga utiliser occasion bi mënoon nga profité parce que lu ne dafay jeex mm-hmm. te loolu moom franchement réccu naa ko ndeysaan te bi ma ko waroon a yóbbu màkka la génn àddina mm-hmm. maa ngi fàttale fàttaliku benn jour ma ne ko yaa léegi yàlla defal na ma teranga bul jaay man maa lay dundal mu ne ma ah liggéey maanaam di lekk xaalis te yaa ko moom yaa ko liggéey dafa neex mais ma rek ma liggéey. ma ne ko kon ma bàyyi di jox mu ne ma alali doom dafa neex ma ne ko yow léegi loo ma jaay nga jox ma. loolu neexoon na ma ci moom walla comme nit critiqué ma nii daf ko daan blessé. waaw daf ko daan blessé daf ko daan gaañ waaye su ma nit gërëmee day kontaan daf may yónnee vocal bi. yaay daal ñiy dundale daal neen fonk lool te jàpp waaw man bi mu dee laa door a xam njëriñu présence am ci suma dund waaw moom Moussa mooy xaritam ak maam Astu man moom suma papa man lu ma am suma papa ma gën a ku dut suma bàyyi ma la gën a ak koo mën a doon ndaxte moo ma yar ci mbëggeel man suma papa musut ma def lu mooy benn mbéj waaw moo ma yar ci mbëggeel man ci mbëggeel leen ma yar moo tax man damaa xam mbëggeel dama koo dund moo tax dama ku bëgg yàlla laa ku bëgg yonent bi la mhm. ku bëgg Cheikh Tidiane waaye ku bëgg Baay moo tax man mënumaa bañ man su may defante yow sa bañuma la mhm. mais jamono toll foo xam ne xamuñ ku naïf da ngay doon benn pànk teg lu métti ñu ne la xii nga ne haam ñu dóor nga màtt fa la jamono toll mais au fond boo ma xamee nga xam ne kii ku bëgg ku mën a bëgg la mhm. loolu su ma bàyyi ko def ci man te maanaam toolu yàlla bi mbayuwaay jëfandikuwaay bi gën a wér te baax mooy bëgg te loolu la def ci man sirru mahabbati yàlla ñu ko yàlla may kon su ma yaay daal loolu laay mën a fàttale ko ci moom di ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko jëppul lool ku baax la woon dernière question rek ci confidence lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay suivre ci TikTok muy célibataire yi ak ñi nga xam ne ñooy marié yi ndaxte Cheikh Ahmed Cheikh Ahmedou jigéen ñi la man daal bëgg naa takk jabar daal te xale bu rafet laa bëgg ku ci rafet te bëgg jëkkër ju baax jëkkër ju bari caaxaan jëkkër ju mën a kaf jëkkër ju dana safa mais tabe hmm? mën a naafi la nag hmm? ah Taïfin yi bokk ci loolu. aussi noonu Taïfin moom kër daal laa ci xam merci man bugguma Taïfin képp ku Taïfin rafet nga yaay bomb mais man Cheikh Ahmed doo sama suwa xam nga loolu nag bonut néew ma Taïfin dafa ñaaw. ak a ñoo jongoma tay fin dañu rafet ñoo fi mën mais man suñ doon teela naanu ma man daal borom dagg yu baax yi mm. am ange yooyu laa bëgg ku ma ci contacté daal loo bëgg ci man ni ko damaa faible man jigéen daal bëgg naa leen te bëgg naa takk jabar waaye ñaar laa bëgg mottaleeg suma ñaari muy kaat donc application yi ubbi naa ko ñeenti jabar te kenn du bokk ak sa moroom kër ku ne sa këru bopp ku ne sa oto bopp ku ne chaque jour da ngay am dépense xam nga man gëw foo aaye joxe fa dépense. non non man ku ne da ngay am sa dépense lu la neex nga togg boo amul envie togg ñu commandé parce que méttiwul. Mhm. man jigéen doyewu ma ko fóot doyewu ma ko raxas te doo baleel sa njëkki doo toggal sa goro du force bu la neexee nga def ko mais c'est pas force obligation ak wareef maanaam privilège ak wareef du benn. c'est pas une obligation mais c'est une privilège bu la neexee nga joxe bu la neexee ça va. donc man rek ngay sëyal waa sëy bi daal li ci gën a kii daal mooy ñuy naafila loolu rek laa bëgg moo tax damay bëgg sa yaram bi du ne bëgg nga xeeñ lu neex damay bëgg nga songé di felaale ñuy voyage di dem di ñëw. te wallaahi li laay dund ah. man musuma am jabar boo xam ne danga nga koy yërëm parce que day fóot den koy yërëm parce que day bale day togg non loolu moom yàlla wërsëgaluma ko wax dëgg yàlla célibataire yi daal yàlla neen dee yàlla neen jeex ci réew mi célibataire yëpp yàlla neen dee gis nga bu ñu toogoon célibataire yi dee dëkk bi dafay neex parce que du am nekk ci internet bi di saaga nit ñi ci commentaire non non non am occupation da ngay am ku la bëgg nit buñ la bëggee nga kontaane doo xasta ci commentaire mais bu fekkee da ngaa sa safar bi bala sa jigéen ñi bala wala ngay doxante ndobuñ yaay kuy saaga wala xasta ci commentaire donc c'est ça am na solo mu bëggee la xew àdduna amul solo. àdduna amul solo am na solo Cheikh Ahmed Cissé ñu jàll ci dernière partie bi rek muy partie quiz je rappelle que internet Sénégo TV ak Kawtef yéen a ngi seen émission face aux facettes quatrième numéro tey nag ñu dalal ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Cissé ñu ngi ci jàppandalu question. émission bi nag Cheikh Ahmed question yi nag cinq rek lay doon euh, premier question bi ñu jàdd ci jàll Cheikh Ahmed tey bu ñu ñëwee di ko laajte lan la gën a bëgg ci àddinaam à euh, li nga fi citeegu mu nekk euh, alxuraan ak aussi la femme à part lan nga gën a bëgg te amagoo ko instant bi te xam ne bëgg nga ko te bëgg nga ko am lu ma gën a bëgg wala lu ma bëgg te amaguma ko li nga gën a bëgg laalante. à part la femme ak le corps. non pas femme laalante laalante ak femme du benn man laalante ma gën a neex ci àddina franchement. Chafat amoo leneen loo bëgg. yaa ma laaj loo bëgg oustaz Mouhamed Mbaye bi ma ko yóbboo Maroc mu ne ma ñu waxtaan mu ne ma loo bëgg. Mm-hmm. ma ne ko laalante mu ne ma yaa ma ne ko déet yaa ma laaj mu ne ma loo bëgg ma indi la ma ne ko ah lu ma bëgg nga indil ma mu ne ma ne ko kurus mm. mais man laalante moo ma gën a neex su fekkee lu ma bëgg te amaguma ko mm-hmm. mooy bokk ci xalifa Cheikhu Tidiane yi ci muqaddama mi laa bokk mais bokk ma ci xalifa man loolooy suma mébét ci àddina mm-hmm. mm, taalibe bu dul rekkeeku la boroom xam-xam bu dul wàññeeku la mm-hmm. boroom mayu rëy la mais doon ci xalifa Cheikhu Tidiane yi mooy suma daj mooy suma dayoo xememteefu àdduna. loolu rek laa bëgg fu mu nekk nii. Mm-hmm. yàlla baax na incha allah ak xam-xam bi rek yàlla dina la ko may. Euh, Cheikh Ahmed tey lan loo xam ne def nga ko am ci gàllankoor te pare pour defati ko sa àdduna. Mm, loo xam ne def naa ko réccu ko. Mm. mu jaral la. xam ma man rëccu gàllankoor. man nag du may rëccu man damay jàng ci chaque circonstance. Mm-hmm. mooy nopp bëggatuma nopp lu des ci suma dund. pourquoi. nopp daf ma gaañ. daf nopp daf ma gaañ moo tax daal bëgguma nopp man léegi nii su ma ba di la nopp dama lay bloqué wala ma tendance la tëggal la ñu xuloo ñu bàyyi wante dama benn benn jigéen ndeysaan jaañ la sant dama ko bëgg. Mhm. su ma demee ba nga xam ne mu ngi may waaj a dama koy tëggal rek moom dafa yëg boppam mu bloqué ma ma bloqué ko donc nopp daal laa xam ne moom laa gën a ragal nopp bugguma ko. dañ ci am ay histoire histoire loolu rek émission boppam la. <laughs> waxal <laughs> bàjjo bi <laughs> nopp rek laa ragal. luñ la ci mës a def. bilaay bu gaynde taxawoon nopp taxaw ma dem attaqué gaynde dóor ko ba mu bëgg a dem mais nopp ñemewuma ko. luñ la la mës def ci nopp. man lu la leen ma def ci nopp yow. comme lan <laughs> jooy nga ci nga ci. jooy nga ci tuuti non su ma la noppee eh, eh loolu émission la bu ci dugg. su ma ci duggee rek loolu duñ ci génn non non nopp nopp rek laa ragal indi beneen question. <laughs> indi beneen doo ci génne beneen question indi beneen indi beneen. delloo bañ a delloo nopp <laughs> nopp rek laa ragal waaye surtout réccu nii man du ma réccu. Mhm. man damay jàng mbir day xew ma jàng ci. Mhm. xam nan laa war a muñee nan laa war a réagir nan nan nan mais du ma réccu ma réccu ma dara. Mhm. ndax fi ma juumee moo ma jox expérience ba ma nii tey. ma juumee. moo def kii ma doon tey. waaw élève bi euh, euh, professeur bi gën ci man mooy erreur. waaw te bokk na ci doye di nga fakkastalu daanu jugal rek faxasuta dem waaw ñi yegg yëpp dañoo yàgg daan waaw mais man rëccuwuma dara suma àdduna mais li ma ragal daal mooy nopp nopp daal nga nga ragal dina ñëwaat ci beneen émission mu wax ñu lan la ragal ci nopp ak aussi nopp lan la ko def ndaxte it Cheikh Ahmed mi sañ wax hmm. Cheikh Ahmed mu ragalul dara toog fii <laughs> di diggante gaay la mu wóora dama ko ragal <laughs> yàlla bu ma noppati lu des suma dund moo tax damay julli naan yàlla su ma waree nopp yàlla naa nopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais nopp moom wóorul ci man. wóorul ci yow dama sensible. man damay nopp ba nopp sa koñ koñ bi sax dama koy nobbaale émission la dinañ ci ñëw. <laughs> dinañ ci ñëwaat incha allah tey Cheikh Ahmed bu amee lu ko metti mu toog xolam neexul lan lay def lan la xalaat loo xam ne bu ko defee mbaa mu déglu ko rek fiix laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah nii rek damay giif mhm. wala ma laalante ñaar yi daal moo mën a yóbbu suma naqar bu ma fàtte ne dara safuma mhm. mais tudduma yàlla laaluma suma mer dafa garaaw de tamit suma meree yàlla dafay mer ànd ak man mhm. boo ma tëddalee kaso tëdd hôpital wallaay tallaay boo ma sàccee ñàkk. boo yàqee suma ngoro sa say tas. boo nekkee ci poste di ma xeex sa da koy ñàkk du man maa ko mën. waaye foofu la yàlla toll ak man macha allah. moo tax ba man daal su ma meree tudd yàlla rek. waa wala tagg baay ñes daf may giifal. daf may giifal ba ma fàtt. xitam jamoo gën a xiir gaynde moo yóbbuy karaama yaa gën a rëy si gol fa yi dóor xëy batoom dawa foor mel ni jaani saamaan rahmatoom gën a xiir ci faqiir ak miskiin suqaali nga sunuru ya suuqoon ca zulmaan ni ñoomin kabu mbaal jën ba wer sandangaan salimaqa koko tooy be bam xol asamaaw war naa juk bàyyi càggante topp sewaaw xam nga lii dafa neex bi moom Abdourahmane Ndiaye laa koy may sama tonton bi nga xam ne taalibi Baye Niass bu la Ndiaye Diatta yii laay def man man daal su ma meree ci Baye Niass laa mën a dugg giif mhm. waaw jàkkaarloog jëmmam ju sellu jooju jëmmam ju teey ji mhm. ah jëmmam ju neex a bëgg gi man daal loolu moo may giifal su fekkee ma yàlla zikaruma mhm. waaw ah, maa ngi ci sukk sukk aya ah, bu may daanu di géefal. dernière question Cheikh Ahmed est-ce que Cheikh Ahmed gëm na xaritoo amitié. waaw waaw gëm naa ko kay mooy man suma bopp laay xaritoo su may jëw damay toog defi suma bopp par deux jëw ba doyal toog. su may def leneen suma bopp man gëm naa xaritoo man suma xol laa xaritoo suma jikko laa xaritoo suma bopp laa xaritoo keneen ku dul kooku neen ànd ci intérêt. nga may may gis sama suma suma bopp ci yow nga gis sa bopp ci man su jeexee rek jeex na. Mhm. ndax waa bi marché ta fay na ko mu farixlu bëggal ko la neex da ngay ko ak moom. Mhm. c'est ça quoi gëm naa xaritoo xarit am na. Mhm. te man suma bopp laa xaritoo. su fekkee ne nag damaa génn suma bopp ñu wax xarit benn xarit laa am Babacar la tudd Diaw la sant yaayam suma bàjjan la suma bàyyi nijaayam la kooku suñu xaritoo ci ñaar rek la baasew ma koy tooñ mu may baal koy daw di ko dagg mu may jokk. may am duma ko jox muy am di ma jox lii rekk la makaarimul axlaax la jëflante ak man mais li ma bokk ak moom laa bokk ak ñëpp mais ni ma nangulee su may ñaawteef muñal ma ko jéggal ma la nit ñi nanguwul rek moo tax ñu mel nii kooku daal mun naa ko woowee xarit te gëm naa ne suma xarit la te wóolu naa ko ci suma jabar wóolu naa ko ci suma doom wóolu naa ko ci suma alal wóolu naa ko ci suma liggéey wóolu naa ko ci lépp sans hésitation wóolu naa sax mu may woo ma jàkkaarloog téléphone bi te duma ko jël te du mer te du ma ne lu tax jëloo ma wóolu naa ko ci biir wóolu naa ko ci biti. sa xarit la. waaw te su fekkee ne yowmal xiyaam benn place des àjjana yàlla na fa dugg ma dem safara. waaw wallaahi ak suma koor gi. ñu dem ba ci kanami yàlla àjjana fees benn place rek la yàlla na ko jël moom ma dem safara. Babacar sa xarit bi. waaw kooku daal kooku Babacar Diaw kooku. Mm. suma yaay deyee sax ñëpp teew dama ne ko jullee waaw wala ñëpp a fa ay imaam ñi nit ñi jàpp nañoo gën a nu ma ne ko yow yaa koy jullee mm-hmm. turu yàlla bu ma xam lu mu gën a foor man moom laa koy jox ako téyel wallaahi te lu ma ko jox fekk naa mu am ko mm-hmm. dem na ba nit ñi suñ may jëw ci moom la ñuy dem ñaari baat rek lay wax ñaanal leen ko rek mm-hmm. nit ñi di ko attaqué te mënul ci man dara wax rek la man ndax juruma nag te du suma borom waaye daal mbooleem mbindeefi yàlla yi ci kaw suuf di dund ñaar laa teg ci kawam imaam Cheikh Malick Cissé ak moom waaw ku ma bokkal deret rek Babacar Diaw ma la gënal waaw ku ma xaritool moom la gënal kooku moom mun naa wax ci moom ba suba wallaay dafa yiw dafa baax dafa am xam-xam nit ku kawe la yal na yàlla fay ko mboolem yiw kooku daal mhm. mun naa ko wax xarit mooy suma deuxième xarit mais suma premier xarit suma bopp la man suma bopp rek. <laughs> kon Babacar gis nga Cheikh Ahmed lim la fi waxal lépp ci baax baax ñu leen ñaanal yéen tamit seen xaritoo bi mu gën a dëgër yàlla sàmm leen bu baax a baax. Cheikh Ahmed émission bi tire à sa fin tey lan ngay wax sa dernier kàddu. internetu Sénégo TV ak Kawtef bi la doon seetaan ci émission face aux li may wax mooy yow nit ku am dal nga ku teey nga. te dafa am cër booy jox sa invité loolu nag professionnalisme la rek te ku am njëriñ ci nit nga ku am itte nga mais gor nga mën nga mayee teraanga. <laughs> mën nga maye sa temps mën nga mayee sa xalaat mën nga mayee sa xam-xam mën nga maye sa kàddu. mais Sénégal malheureusement ku leen joxul xaalis ak baaxu mais man mbaax ak tabe dama leen xàmmee waaw am joxe du tabe sedd nit ñi seen wërsëg la wuti joxe mooy tabe waaye nit ku baax nga. nit ku tabe nga nit ku yaatu nga. beneen ba mooy Sénégal yaa tax ma bëgg fi yaa tax ma fonk fi mais ñoom it ñu am crédibilité leen Sénégal. li ko def nag du benn fan du ñaari fan. beneen bi mooy na nit ñi. di continuer di jand àndalaa buri doy waar ak régu ndax 100 pour cent garanti la te garab yi baax la may wax ne weeru koor bi léegi mu jeex ñi du doon woor bu jeexee ñu rus ñu doon wor lu métti métti bu jeexee ñu fàtte ko waaw yàlla jarta muñ waaye jaamu yàlla jar naa muñ ba am ngërëmal borom bi ndax yàlla dëgg-dëgg boo yeggee ci moom njëriñ newu fa mm-hmm. waaye nag ngërmande borom bi njëriñam ci te loolu jaamu yàlla da koy joxe mu naqaru jaamu yàlla ba jot xalawatul iman da koy joxe waaye nag neex na yàlla rek mu tànn la jox la ngër màndam yàlla ñu tànn loolu daal lay tàggatoo di gërëm ki doon seetaan di wax na Cheikh Ahmed Cissé daal mu ngi nii wax la muy def ak la muy wax ku ne am na ci droit mais juge personnage am ku ko def yaa ngi ci erreur ndax mbut la mu kenn xamul kum doon ak lan la yàlla namm ci moom maa ngi daanelee suma kàddu ci bu fekkee ne dang ma dama la neex lool jërëjëf waaye bu fekkee ne ah naqar rek nga am ci man dangay muñ te ñaanal ma yàlla loolu la àngale naan if you love me thank you if you don't pray for me wa axiru daawana an alhamdu lillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> ñuy remercier aussi waa complexe Eva Beauté ñu ngi nekk Nord seen numéro téléphone mu nekk ci 77 951 35 58 ñoo jaar ci bopp bi ñoo jaar aussi eh, ci coiffure sama sponsor leader yooyu nga xam ne saasu na ne rek eh, su ma génnee belli seen loxo la ñu leen di ñaanal bu baax di waxit ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu def fa un tour xale yu ndaw lañ dañuy def yu baax yu nice yu tegu ci temps Cheikh Ahmed ñooñu aussi di leen waxal dara muy waa complexe Eva Beauté. waaw complexe boobu dinaa fa ñëw. Mhm. te buñ la solalee rek solal neen ma. Mhm. kon ci suma kàddu dinaa leen jox yére madame ñu ñaw ko incha allah. te du waxi télé. Mhm. lu ñuy dëggal lay doon. merci beaucoup ami fidèle internet Senego TV Kawtef beneen numéro beneen